ñuy seetaan direct fii yéen ngi yéen a ngi direct sama kër yéen ñu dugg ñu partagé leen parce que policiers yi ah, xaw ma ay policiers lañ xaw ma ay lan lañ ñoo ñëw sama kër xaw ma ban heure lañ fi gis nga ñenn ñi dajji nañ bunt bi ñenn ñaa ngi nii di yéen doo ko defay ay affaire xam ma heure bii xam nga non du heure yi ngeen ñëw sama kër sa waay mais waxal ma dégg. non waxal ma dégg non police police a ñëw sama kër police heure bii heure bii gis ngeen heure bi jot ah? bi jot ah six heures presque nangam di matin ah six di matin Sénégal àdduna yéen ñëpp a ngi seetaan xoolal sama buntu kër lañ dajji directement xam nga ah soxlawul nëbbatu bàyyi ba xaw ma leen xaw ma ay lan lañu yéen àdduna bi yéen ñëpp a ngi seetaan ah xam sama buntu kër lañu dajji sama buntu kër naan ma police bu ñuy nelaw ngeen ñëw di daj seen kër yi naan police di ko bëccëg nekk fi lépp nekk fi ah Euh, ñëw kër da ngeen ñëw heure normal ci kër fii euh, dañ fi rey nit ah waaw se dañ fee rey nit dafa dafa am nit bu ñu fi rey ah ah non bu commissaire commissaire mi yëg sama numéro du noonu ngeen ñëwee sama ban police ban police ban police ban police. ak police bu ngeen mën a doon heure bii waru leen ko ñëw sama kër. heure normale la ngeen ñëw. ban mooy ban mooy heure normale. heure normale la ngeen ñëw. ban heure moo jot. non waxal ban heure moo jot. waaw non non. yee. six heures jotagul. dafa am heure bu ngeen war a ñëw bu fekkee police ngeen. yaa ngi may dégg fépp ci àdduna bi police dañoo ñëw daj sama buntu kër xam nga wanewuñu carte wanewuñu dara xam nga ah yéen ñëpp a dégg gis nga leen ñenn ñaa ngi nii ci fenêtre bi kenn ngi nii taxaw yéen a ngi jàkkaarloog moom xam nga mu nëbb kanamam pour lan muy nëbb kanamam. lan lan ti jiw ma gis ko ah gis ni mu def kanamam naan ma police. yéen eh, fi loolu mooy ngaaka lu ñuy wax ci manqué respect ngaaka la non non dajji dajji dajji yéeg xam nga dajji buntu kër jaambur yéeg wàcc heure bii fii li ngeen bañ mooy adduna bi yëpp a koy yëg egg ngeen ci mille nangam doomu aadama di leen seetaan ba pare amuleen droit ndeyam ñëw fi heure bi amuleen droit daaj yéeg buntu amuleen ci droit bu leen bu leen bu leen bu nekk di wax wax bu bëri sax fii lañ fi wax dëkk bi dëkku fa dëkku lan la du dëkku ubbiwuma ndeyam yéen waa monde bi yëpp àdduna bi yëpp partagé leen vidéo bi man laa seen Diouf police ñoo ñëw sama kër xoola heure bii heure bi ñëpp a nelaw aw ma dul jékki ay gëg gëg gëg buntu kër xam nga Assane yee c'est la police xam néew sax c'est la police dañoo dajji buntu bi tëpp ah mais commissaire moo la soxla yooyu jël si ni koy jël si heure normale ragal police bi fekk ay mala wala criminel wala dara root buñ fenêtre jaamu sax da ngeen koy dajji ah mooy seen liggéey ah fenêtre ah. partage leen vidéo bi partage leen ko ñëpp gis ko xam nga heure bii heure bii la ñu ñëw sama kër heure bi xam nga wane wuñu carte wane wuñu dara xam nga pincé sama bunt ne dañuy dugg par force loolu fan la am fan fan ci àdduna bi ban dëkk bu am démocratie ndax parce que dañuy wax suñu réew dañuy wax suñu réew ku wax ci président ku wax ci ko mën ci doon ñu naan ñu ñu ñu am lu ñu def pour yow pour lan pour lan pour lan li mooy police bu Sénégal heure bii la ñuy yeewu di di di dajji kër jàmbur yi solu ñu tëni solu ñu dara am nañu dara loo ne ne ay policier lañu ah. xam nga def lu leen neex gis ngeen ko ñu ngi nii en direct yéen a ngi leen seetaan pare ñoom laa koy joxe ana mo dañu yor mo bu ma gaañ bu ma gaañ man yaay gaañ sa bopp yaa bëgg gaañ yow waaw man dama gaañ wax leen. non man duma ma yooyu yëpp duma ko sa loxo. non yaa ngi seere ma nag ñu seere koy yow. voilà. sa waay du ak man de du noonu nga may def de. du noonu nga may def de barki yàlla yaa ngi may gaañ. yaa ngi seere ma nag sama loxo. na jël jël na jël amul jël na ma koy may. ma ko may dara. ma may jox sama yéen. ma may dara ma may dara ma may dara. ma la dara. ma jël si saa yéen. sama téléphone du ko laal. Eh, eh, eh, sama téléphone du ko laal.